jëm ci wàllum assainissement dina jeex fii ak njeexantalu weer wi askan wi nga xam ne ñooy yeewoo Kër Massar ñoom tim bu ñu nelawee bay boo ñu nelaw ba yandoora xam ne ren ji daal maanaam inondation di mbënd du leen sonal yéen kaay gi la Soleil ak Le Témoin xëy duñu xibaar naan ñu gendarmerie nationale jamono ji am na patron bu yeesa ndax général Jean Baptiste mi nga xam ne mu jiite woon gendarmerie nationale jëlee nañ ko fa andi nañu fa général Moussa Fall jamono ji moom général Moussa Fall moo nekk au commandant de la gendarmerie a kaay xibaar nañu ni ki démb tribunalum Dakar daan nay daan journaliste bi di Madiambal Diagne lu toll si ñetti weeri kasu ak lu toll ci six cent mille francs waaye tamit dina jox lu toll si juróomi million ki nga xam ne mooy Souleymane Teliko mi ko yóbbu woon fa mbaxana doone benn mbir ma nag na mu demee journal bi nee na Madiambal Diagne moom moo tuumaloon Souleymane Teliko ne nag bi nga xam ne daal doon na dem mission ca Tchad ca jamono Hissène Habré état bu koo joxoon ay frais mission te ba mu demee tamit gouvernement bu Tchad moo ko jël en charge loole nag Souleymane Teliko daf ko woon ba tëdd sa naaj wa am lu ko naqari mu daal di koy porte plainte ni ki démb nag tribunalum Ndakaaru nee na ma jambal jaañ li nga xam ne moom nga tuumaal Souleymane Teliko lépp dara du ci dëgg ay kàcc la yéen kaay gi di Le Quotidien nee na journaliste bii ne ma jambal jaañ nee na dina def appel ndax mbir mi jaarul ci yoon Institut Pasteur ñoom nag daat nañuy alerter ci coronavirus bi kaa yi jamono ji kaa yaa ngi yokk yéen kaay gi di Source A nee na jamono ji nga xam ne kaa yi ma ngi yokk Macky Sall ma ngi ci àll bi di Tambambalu di promenade di folklore yéen kaay gi di di réew mi quotidien na Populi laas xëy dañu ñu capitaine Omar Touré mi nga xam ne moo nekkoon section de recherche daat nañu koy rajee ci gendarmerie nationale yéen kaay gi de la Soleil xëy dañu xibaar naan ñu jaaxle jeex na ak coono bi nga xam ne moom la askan wi yeewoo diggante Ourossogui ak Bakel doon dund ndax Ourossogui ak Bakel am na wenn yoon woo xam ne askan wa xaw nañu fàttum ranke loolee Macky Sall lijjanti na ko ndax diggante Ourossogui ak Bakel deux cent kilomètres la yoon wa defar nañu ko yéen kaay gi de la Témoin xëy duñu xibaar am jamono ji guerre bu mag moo fa am diggante député bi di Farba Ngom ak ministre bi ñu dénk wàllum justice di maître Malick Sall yéen kaay gi di la turbine xëy duñu xibaar naan ñu Macky salla ma ngi amalaat tournée ci diwaanu matama te nag Macky ci boppam moom nee na bëggul gi sagar wu xonq waaye nag gars yi ba léegi ñoo ngi wan Macky Sall sagar wu xonq yéen kaay gi di source xëy duñu xibara naan ñu fukk ak juróom-ñeenti communes yi nga xam ne ñoo nekk ci département bu Linguère fukk ak ñett ñoom ñëpp daat nañu joxante loxo ci coordination départementale bi neema Aly Ngouille Ndiaye ngir nag teertu ki nga xam ne mooy président Macky Sall ci Linguère waaye nag Samba Ndiobène Ka moom dafa lànk kandaare rébellion ba pare bëgg xaar Macky Sall ci commune bu Daara Jolof waaye nag ci ay rumeur population bi nga xam ne ñoo dëkk Touba ñoom la ñu bëgg daal jëlee leen Touba daal andi leen fi nga xamante ni maanaam mooy commune bu Daara jolofa ak ñi nga xam ne ñoo dëkk Kédé ak Sadio ak yeneen localité waaye nag ñi nga xam ne ñooy waa nee na ñu duñu ko nangu benn yoon mënu ñoo nangu maanaam ñuy dem di jëli ay nit ñoo xam ne nekkuñu ci département bu Linguère di leen di andi ci Linguère loolee munuñu ko nangu tey munuñu ko nangu ëllëg te duñu leen bàyyi yéen kaay gi di réew mi quotidien ak la turbine xëy duñu xibaar naan ñu Bougane Gueye dafay def ab tournée ci diiwaanu Fuuta waaye duutu ko dooleeti ndax nervi yu APR yi ñoo ko attaqué ba seen xol sedd Assane Samb xëy jël xalimama nee na nag senegal jamono ci ci wàllug violence si la senegal dugg ndax nag munuñoo toog benn fan boo xam ne dégguñu aw violence ci réew mi yéen gi dee sat xëy wax ci coupe d'Europe beek ñaareelu bëccëg bi groupe D bi tey ji diggante Angleterre ak